ñu ne yàlla dafa dogal nag euh, ñu nekk ay jeunes nekk ay jeunes yoo xamante ne dañ gis yoon muy mouvement di consumérisme ñu xool mu nekk njëriñ bu rëy bu am Sénégal te Sénégal yu bëri desee ko miin dese ko xam ndax niñ ko niñ ko waree euh, niñ ci war duggee ñu ñëpp dafa des yàlla dafa dogal nag am ay pionniers yoo xam ne plus de 30 ans ñu ngi fi lu bëri buñ ne ceeb wàññeeku na ndox wàññeeku na courant wàññeeku na location location yi wàññi wàññi nañ ko ay rafet yu bëri am ci secteur yi ba consommateur yi di ci yëg seen bopp ba naan alhamdulilah rabbil alamin sa Sénégal léegi émergé nañ mooy pionniers ñooñu. ñoo si am rôle bu rëy rëy buñ ci joué que ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam ngeen fekke ko ñàkk ko fekkee ñooñu nag naa si lim ay pour pourquoi lu waral suñu journée bi pourquoi ñun ndaw ñi ñooñu nekk ñu suñu royukaay ñu nekk ñu xam ne ne dañoo namp dañoo nampatal si ñoom lu ñu nekk muy yoon bu baax xam nga Sénégal xale boo gis bu ne mu nekk si yoon dañ naan am na mentor man yàlla dafa dogal monsieur Momar Ndao nekk sama mentor pour wax leen ne rek euh, Sénégal am na ñu xam ne ñu ngi fi di béy seen waar te ñoo xam ne nit ñi xamuñu leen mais ñu ngi jaamu yàlla yëpp ñoo ngi koy def ci cadre volontariat ak bénévolat yàgg ci loolu nag nit ñi xam ne ñun ñu ne ndaw ñun ne comme ñu dañu jël yoon boobu ñooñu foog ñu fësal leen ñu delloo leen jukkal parce que ñoom ñoo ñu tax ñu bëgg yoon boobu parce que dañu gis li ñuy def mu nekk ab jaamu yàlla. bon tey dama yore ñaari mbaxana bon yoo xam ne benn bi mooy consommateur la membre association consommateur la ñuy sargal association yi nga xam ne euh, joxe nañ seen bopp lu ëpp ñaar fukki at pour devant consommateur yi donc loolu mooy li benn benn ci pàcc yi beneen ci pàcc yi mooy ko euh, seen dafa décider tamit sargal président de la république donc ma nekk conseiller technique am donc bi mu nekk ni ma nekkee woon conseiller bu Ablaye Wade Euh, tey jii ma teewal ko fi pour nangu li nga xam ne moom mooy euh, euh, kii boobu ñu ko jox maanaam raaye googu ñu ko jox léegi nag ci turam moom li may wax mooy président mi ngi déglu problème mu yi parce que yàlla def na lu ma ko expliquer ci affaire consommateur yi rek moom da koy jëlee lu baax te da koy jéem donc moo tax ci lañ wàññee location bi te déggoo coow déggoo bruit ci lañ dajale boo dajale li nga xam ne moom la ñu wàññi depuis bi président Macky Sall yéegeeg léegi mu ngi toll ci lu ëpp un million de francais CFA ci par mois yoo xam ne day wàññeeku ci dépense yi nga xam ne moom la borom kër di dépensé su fekkee dafa am oto am fukki bant dëkk ci kër goo xam ne location la. kon nekk na ay wàññi yu am solo ndax yi ñu wàññi ci gaz bi yi ñu wàññi ci meew mi suukar si et cetera et cetera wàññi bi mujj rek pour wane ne mi ngi déglu consommateur yi. mooy li ñu wàññi ci ciment bi ndax xam ngeen ne ciment bi dañoo tëboon yokk ko fi boobook léegi am na juste batagul sax weer euh, biñ ci waxee ak moom mu ne gars yi dellu leen ginnaaw euh, jox instruction ministre du commerce mu mu delloo leen ginnaaw. li am solo mooy man kan laay xeexal consommateur bi nan laa mun a def ba obteniral ko résultat bi nga xoolee nii li jëm ci euh, moom mooy location bi mars nañ sax ci temps yi ab lay waat mais président Ablaye Wade moom dafa jàppoon ne suñu yokkee kër yi. yi ñu liyee dina tax mu lamb ba nit ñi wàññi mais yàlla def na loolu amul président Macky Sall bi mu ñëwee ma ne ko nañ wàññi location mu ne ci naka ma ne ko nii nii nii mu ne aywa ci lañ mu wàññee location bi kon obtenir naa lu am solo maanaam kenn ku nekk ku doon fay cent mille nga am vingt-neuf mille yoo xam ne danga ci def lu la neex sa poos te fekk ne marsuñ defuñ dara kon li may wax daal mooy soo nekkee ci mbedd mi bëgg borom kër gi nekk ci biir kër gi dégg coono yi ñu nekk ci mbedd mi da ngay yuuxu bu baax mu dégg la ndax mi ngi ci biir kër gi mais boo xasee ba nekk ci biir kër gi dend ak moom ñi ci biti am jafe-jafe da nga ko ah ñi ci biti de am nañ jafe-jafe sàngam mu ne ah bon ko mu sotti kon li gën a am solo mooy lan lañ mun a obteniral consommateurs yi ci li nga xamante ne bi moom mooy seen i soxla